Mohamed Niang le célèbre chanteur de Cheikh Béthio Thioune jubale nañ ko ak famille Cheikh Béthio Thioune grâce à Cheikh Amar ginnaaw buñ leen jubale ak famille bi nag Mohamed ñaar def déclaration ne problème musul am ñàkk waxtaan rek moo am si la doomu Cheikh Béthio Thioune bi defee déclaration moom tamit ne Cheikh bi baal na ñëpp avant muy dem ñuy ñaan Sénégal yal fi jàmm yàlla Mohamed Niang le célèbre chanteur de Cheikh Béthio Thioune jubale nañ ko ak famille Cheikh Béthio Thioune grace à Cheikh Amar ginnaaw buñ leen jubale ak famille bi nag Mouhamed ñaar def déclaration ne problème musul am ñàkk waxtaan rek moo am si la doomu Cheikh Béthio Thioune bi defee déclaration moom tamit ne Cheikh bi baal na ñëpp avant muy dem ñuy ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg te wér